العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا وملاذنا ورجائنا الشيخ الخليم وأيد خليفته الشيخ محمد المنتقى أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله. من المسلمين شيطانين di tàmbali suñuy kàddu ci tur suñu borom di ko sant bu baax di ñu bolé ci jotaay bu bare barké di xéewalee gi di jotaayu suñu borom di jotaayu alquran di jotaayu yunus bi sallallahu alayhi wa sallam di jotaayu sëriñ bi di jotaayu gaayu baax yëpp ñu war ci sant yalla bu baax nak ndax bari na aw nit wu nu ëpp ëpp leenu ay kay daje ci béréb am ci sax ñoo xam ne dañuy paas ci ay millions ba ñëw fa te la ñu fay nekkee ba bàyyi ko amu ca dara yàlla gërëm seen alal dem ca seen waxtu dem ca seenu joono dem ca ñun nag yàlla dimbalenu ci lu nu jege lu yomb ci noonu lu taw feexe ci lu man di am jotaay yu baree barke nii te baree xéewal nii jotaay yoo xam ne ñi ci toog yàllaa leen ci bàyyi ñi ko woote yàllaa tax ñu woote ko te bu ko nit ñi ñëwee yàlla lañ fay nekkee ba keroog ñuy tàggali yàlla yàlla def jeexu jotaay bi yëpp di faj suñu aajo di tax yàlla baal na suñuy bàkkaar te def ko it mooy ak dëgër ci ñun ci suñu borom. ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom njabootam ak saxaabaam yëpp di ñaan yàlla mu dool noo fayal sëriñ bi te nam ko taamul. te loolu noo saxal ci ndigalam yi ñu bañ koo génn benn yoon yàlla yàggal fi Cheikh Mahmoudul Muntaxa te dolli ko ak wér bu baax te dolli koo dimbale yàlla dëgëral kilifaay diine yépp te sàmm leen ba seenu taxawaay ci diine lépp ñu def te day seen bëgg-bëgg te yàlla nangu ko maa ngi nuyu mbooloo bi ci asalaamaaleykum wa rahmatullah di tàmbalee nuyoo bi ci suñ baara mi nga xam ne moo ñu dajale waat tey jii ci loo xam ne yàgg nañu koo defal te muy xéewal bu rëy rëy xam ne jàpp naa ne ba tey rek nit ñi xamaguñ luy tolluwaayu xéewal googu ndax alquranul karim mooy waxi sunu borom subhanahu wa taala nga xam ngeen sunu borom dara yemut ak moom yi ci alquranul moomu nekk mbootam moomu ci la fale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la gindee saxaaba alayhim ci la génnee xam-xam yu am njëriñ yi borom xam-xam yi tasaare ci àddina tey ba ñëpp mën a jëriñu ci suñu borom mën a jëriñu ci diineem ji alquranul karim mooy sukkandikuwaayu ñi sóobu yoonu yàlla jëm ci seen borom mooy daamar ji nga xam ne ci la ñuy war ngir mu yóbbu leen ci maqaama yu kawee mooy yoon wi nga xam ne ku ko topp te wàcceeku di nga dajee ngërëmul sa borom subhanahu wa taala mooy bunt bi nga xam ne it moom la suñu borom ubbil ñi nga xam ne ñoo ko dëgg man te bëgg a jaariñu ci moom bëgg a seetlu ci moom kon nag lu mel noonu bu ci nit taxawee di ci tàggat ay ndaw te ku ne xam ne ndaw yooyu ñooy nekk magi ëllëg lu nekk mu di ko ca def waaye yebu ca nag léeg-léeg rek bu ca amee ndam lu mel nii nga xam ne alxuraan a ko am sëriñ bi am ko mu woolu ñun ñëpp bañ dajee mu boole ñu ci xewal googu loolu jàpp naa ne mënuñ koo fay sëñ baara ñu ngi nga xam ne moo mën a fay ci barkeb sëriñ Touba mu fayal na ko te fay gi nag ci jiitu na doon ak wér ci moom doon doon xeewal ci moom liggéey bii mu gën koo jekk bu baax te li mu ci yéenee jariñ ci am yàlla yi lépp rek mu defal leen ci lu kawe njortam te yàlla nangu ko ñoo ngi koy nuyu nuyu kilifaam yi ñu fi fekk ak mag ñu baax ñi dëkk ci koñ bi ak kilifa yu baax yi fi nekk yëpp ak ñi nga xam ne ñoom la seqal alxuraanul karim ci ñu jàngalekat yi ñoom itam wax dëgg yàlla taxawaay bi seenu taxawaay la yéen ñëpp di sant yi alaaj seex mii ndax ñun la ko yàlla boole ci yoonu sëñ bi waaye lu baax loolu lañ xam ci moom ku bëgg alxuraan la jàpp naa ne rek lii mu am ci alxuraan sax man na cee am leneen ëllëg ndax bëgg na ko donte moom bu ci xam-xamam soriwul it xam na ne bokk na ci liggéeyal alxuraan boo mënta jàngee nga yóbbu sa njaboot bi jàng loolu moom xam naa ko ci moom bu baax a baax yàlla na yàlla barkeel it suñ Cheikh mii yàlla sàkkal ko ay morom yu bare ci daara ji yoo xam ne sax buñ ko mënee raw sax ñu raw ko gën koo rafet daal liggéey yàlla na ko yàlla def alaaji maa ngi sant sa bokk yi fi ñëw yëpp gis naa leen ñoom ñëpp taxawaay bi rafet na lool ñu ngi ñaan yàlla ci barkeb sëñ bi rek mu nangu liggéey bi ndax noonu la ku def liggéey bu toll nii li sëñ mu wax jaroon na lu nu man ci xeeti teraanga yuy tax ñi ko amagul man caa xool ba egsi fa moom mi ko defee moo xam ne def na lu rëy loo xam ne dara gën ko rëy ñu ko def loolu nag xëy ko dara matiwul loolu ngeen doxal seen jëm yi yéen ñëw fi wane na ne liggéey boobu yëpp ngeen te neex na leen ngi ñaan yàlla nag mu def ko muy barke ak xéewal xam naa waxtaan wi nag bëggoon nañ mu gudd waaye comme waxtu yi dañoo xaw a xoj ndax waxtu julli bi lee mu taxaw mm-hmm. te wax dëgg yàlla ñu téye nit ñi yàgg na mm-hmm. te li ma bëggoon a wax lu ci ëpp suñu xaalis mi daf ma ko waxal mooy bëgg rek ñu gën a fonk alquranul karim ak ñoom ñi nga xam ne ñoo ñooy jox suñu njaboot gi alquranul karim te xam ne ñoom day bu leen neexoon ñu def ni ñëpp wuti ay oto di dawal ci dëri bi di wut dara mbaa ñu wuti ay bitig di jaay ci marché yi di wut waaye xam nañ ne loolu lépp bu amee te amul ko taxaw ci wet gii ñu taxaw rek lépp sooxe ndax alxuraan mooy moo téye lépp tax nag ñoom bi ñu ko jàngee ba xam ko ba man ko yemuñu ci téye seen jaboot di ko ci def waaye dañoo wëlbati ko nag ubbi seen i ngir képp koo xam ne bëgg nga alxuraan dugg ci sa dënn ñoom nangu nañoo jaayanteeg yàlla jaayanteeg sëriñ bi ci fexe ba def ko ci njaboot bi te loolu moo nekkoon liggéeyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi amul benn métier bu dul rek jubal jaam ñi ak gindi leen ak teg leen ci yoo xam yoon boo xam ne bu ëllëgee ñu texee gaa yu baax yi royee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yépp it loolu moo nekkoon seen mbir rawatina nag Serigne Touba bi nga xam ne Serigne Xaadim mi ngi koy wax léegi Serigne Afia bi ñu doon jàngal loolu lañu ñu waxoon daf ñu waxoon ne yéen da ngeen war di jàngale ndax seen maam da doon jàngale seen bi mu demee ba nit ñi ak àddina mayetuñ ko loolu sax teewul day jàngale ci ay tomb waaye Moustapha yi jàngale lépp mu am jàngale la mu julee waxtu ba sëlmal dina jàngal nit ñi dara fu mu dajee ak ñoom dina leen jàngal dara te loolu lépp ay xam-xam yoo xam ne ci alquranul karim lay lay jógee moom nag la muy tegtale kon mooy képp koo xam ne da ngaa bokk ci njabootam jëru sax nga yor sant yu waaye boo xasee bokk ci ay taalibeem rek na nga xam ne kóllëre bi Sëriñ Tuubaa fa santeek alquranul karim yow dugg nga ci war nga di jàng alxuraan di ko jàng te doo yem sax ci wàcc ni ñu koy waxee wàcc ab xaaj la ci waaye da war di mokkal ndax sëriñ bi loolu la wax ci téere bi fastaxilu bil xifsi wa tilaawa mokkal la wax mokkal wëlbatiku di jàng li nga mokkal boo ko jàngee ba man koy war ngaa fexe ba lu mu néew néew nga am kenn nit koo xam ne yow yaa def ci moom alxuraanul karim su fekkee ne yàlla dogal na loolu mënoo ko nag xanaa am nga njaboot nga jël leen yóbbu ci ñi nga xam ne ñoom futtiku nañ ngir liggéeyal alxuraan ñu def ci njaboot googu alxuraanul karim su fekkee ne loolu tëlee nga koy xanaa yow nga dem te ñooña di leen jàppale di xool seeni bëgg-bëgg di xool lañ manqué ak li nga xam ne bu ñu ko amee liggéey bëgg na jàppandi nga leen ci taxaw ba xam ne seenub liggéey ñoom itam danañ ci mën a amuk yàpp bu baax ba def ci lañ ci bëgg def su fekkee loolu lépp mënut ta nekk it xanaa nga may leen jàmm bopp nga bëgg leen ne man day wax dëgg mu bokkuma ci ñuy jàng alxuraan yoruma njaboot bu koy jàng yëppuma ci daara ji dara waaye man de ñoom neex nañ ma man de ñoom bëgg naa leen boo leen gisee na leen jërëjëf li ngeen nekk de ñun ñëpp ci waroon na nekk ñu xam ne ñeente dara waaye ñeent yooyu yëpp boolewoo ci benn yow jàngoo alxuraan jàngaloo ko sa njaboot dimbale ñu koy jàngal bëggoo leen ba noppi nag bool ba di ko taxal jàmmaarloo ak ñoom loolu lañ fi gis léegi waaye nag alxuraan kenn musta jàmmaarloo ak moom ba am ndam ci kawam mënta nekk ma nga tàmbalee ci ba mu tàmbalee waaj di aaya yu ndaw yéefar

ki ñu wax al-Walid ibnul Mughira ba mu dégloo seen kàddu yi ba noppi dana leen kii li ñuy wax lu waxi njabarkat du waxi ab gisaanekat du waxi ab waykat kii li muy wax neexit yi foo ko takk weesu na ko te ku ko dégg xam ne wax la joo xam ne du waxi nit loolu moo wér alxuraanul karim kenn du jànkoonte ak moom képp ku mas a bëri ak moom rek yow ci sa bopp yaa mujj daanu ci suuf gis nañ ne ci jamono ji léegi ay nit ñoo xam ne seytaane yii ci sow bi jàngal nañ leen ba naan seenum xel ba soppi seeni jikko ba ñoom seenu couleur yaram lañ dese waaye ay tubaab yu sotti lañ ñooñu nag taxaw nañ ci ne li baaxul ci réew mi lépp alxuraan a tax defe nañ ne ko avancé wul alxuraan tax avancé ndax ñoom mënuñoo gis li nekk ci biir alxuraan tax fu ñu toog ña ngay seet loo xam ne buñ ko waxee nit ñi découragé ci daara yi wala nit ñi bañ a yóbbu seeni jaboot ci daara yi mbaa nit ñi bañ ñi taxaw alxuraan te loolu nag du ma sa nekk mukk ndax ñooñu yàlla moo leen bëgg ba noppi yàlla nag bu xasee bëgg ab jaam ku ko bëgguti bi bu set nga dëkk ci di ko yéene loo xam ne du ko daal mukk ndax yàllaa ko bëgg moo tax ndax liggéey boobu ñu nekk ñoom liggéeyu yàlla la kon ku man di doon si ñun da ngaa war di leen dimbale di leen taxaw soo mënul dool sax nga jàpp sa njàmbur ci ñoom mbaa boog boo leen gisee rafet lu ñuy def te xam ne bu dul dara baat yu bàyyi ko sunu borom la ñuy jàng bari na ci ñoo xam ne daanaka doom la bu xuriku doom buñ ko gisee bu soobee yàlla fuñ ko mën a jàllale mbaa ñu yóbbu ko danañ ko wax te li sëñ Xaadim wax léegi doonga yaa ngi dee ci biir daara yi ñu ngi leen di fitnaan ci école yi ñuy dee dégg te kenn waxul loolu am ci ñoo xam ne ay ëmb sax ci biir euh, école yooyu dañ koy jële te ku ne jàpp naa ne ñay yóbbu seeni doom te euh, béréb yooyee loolu nekkutoon seen jubluwaay waaye nag bu fekkee ne dangaa noonoog alxuraan képp ku laa nga Serigne Touba ak i noonam loolu la leen boole woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i noonam loolu moo leen boole woon ba tey jii nag loolu rek def mooy wéy dégg nga la amoon démb mu am ba tey rek ñi taxaw temm ngir def alxuraan ci dënni nit ñi ngir bëgg nit ñi jub bëgg ñu yeewu ba xam ne yàlla doo nga mat a liggéey yàlla doo nga mat a sonn ñooñu fu ñu toll dañuy noonoo ak seytaan dañuy noonoo àdduna dañuy noonoo ak bànneex kon nañ delloo si wax njàngum tubaab nii lu mu baax baax baax ak lu mu jëriñ jëriñ ci àdduna jot waaye loolu daal laa bëggoon ñu gën koo bàyyi xel nañu taxaw ñuy jàng alquran di leen dimbali te bàyyi di leen noonu ak di leen sàkk ni pexe ndax am na ci loo xam ne ñi koy jël di ko yóbbu te ñu kaawee ni sax jubluwuñ ci lenn lu fitnaan ñuy jàng alquran rek waaw te loolu moom mënuñu cee def dara ba am ci ndam waaw te bu ñu demee te bàmmeele dinañ xam alquran la muy jariñ nañ ci góorgóorlu bu baax ñu ngi ñaan yàlla nag jotaay yi ñu yàgg am ànd ay xéewal am ak barke donc yi ne ci daara ji yàlla def ci seen dënn alxuraan ba ñu am ci ñu mel ne Baye Cheikh ñi ñeneen ñu bare bare bare bare waajur yi ak ñi taxaw euh, gone yi jàng ñu sant bu baax sëñ Moustapha Seye jërë ngeen jëf seen comité boobu nag moom bëgg naa ngeen dugal ma ci te lugal ci taalibe yi taalibe yi nañ dugg ci liggéey boobu bu baax a baax ndax ku mënta dem te daara ja yóbboo sa njaboot xanaa war ngaa mën a taxaw daara ja ca la ñuy jëfandikoo yàlla na yàlla barkeel lépp yàlla def ñu dajewaat fi at yu bari mu ànd ak ay xéewal yu bëree bëri ànd ak ndimbal yu bëri sant naa leen bu baax a baax gërëm leen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu